mais man xam nga lan laa jàpp euh, je me pose une question kañ la ñuy wekk suñu justice parce que lii ñuy wax ci Bah Diakhaté est-ce que c'est le président Bassirou Diomaye Faye je ne pense pas est-ce que c'est le premier ministre Ousmane Sonko je ne pense pas est-ce que c'est le ministre n'importe quel ministre du gouvernement je ne pense pas xamul lu ma jàpp que c'est la justice moom moo def liggéeyam waaw léegi kon APR bu ñuy kaas ci Bah Diakhaté na ni non Sonko ko jàppalu wala président Diomaye moo ko jàppalu ça veut dire que ñoom kon léegi dañuy nangu ni ci ay jamono ñoom ñoo doon jàppalu diw ak diw ak diw ak ñoo xam ne ñu ngi woon ci biir kaso bi justice fan la nekk indépendance la justice fan la man jàpp naa ni dans cette affaire là la justice a été indépendante elle est indépendante et la justice indépendante mooy man procureur man maa jàpp ni kii la mu wax ak na mu ko waxee ak fam ko waxee du yoon ma activer ñuy woyee suñu euh, ay takk def ne leen dem leen jëlil ma ko parce que kii faw mu toog leeral li mu wax parce que mën naa indi danger boo xamee ni xam nga nit dañ la jàpp def la mandat de dépôt wala euh, euh, retour de parquet procureur woolu la je di dit hier pas pour mettital la mais quelquefois même pour Euh, préserver la yow pour sauver la yow parce que un Badiakhaté ou un Birahim Touré mu wax ci le premier ministre je l'ai dit je le répète du ma cautionner kuy saaga autorité du ma ko cautionner foo mën a bokk opposition au pouvoir ou ku mën a doon mais ñu ne Birahim Touré dafa saaga euh, Ousmane Sonko ñu xam ne Ousmane Sonko waxuma sax premier ministre bu mu doon mbooloo ngi ci ginnaawam ñoo xamee ni moom mënu leen a téye forcément ndax dina si gis benn euh, fanatique wala ku ko bëgg bëgg lool ba nga xamee ni ku ko wokk moom moo ñëw lijjanti la mu mën laa indil yow fépp foo toog en danger mais procureur mën na ne kii Birahim comme moo wax nangam. ci koo xamee ni siiw na nit ñi bëgg nañu ko euh, am na euh, ay nit ñoo xamee ni mënul leen contrôler mën naa ko xëcc sax téye ko ne ko li nga wax ci diw fan nga ko teg yan base nga ci am yan firnde nga ci am nañ bàyyi justice mu def yoonam justice buñ ko bàyyi mu liggéey liggéeyam dëgg euh, tout le monde sera satisfait te justice moo war a jël indépendance su boppam ba ñu wax naa ni ci jamono procureur wala tribunal bu Ziguinchor jël na décision boo xamee ni mais c'était en faveurs peut-être de l'état bi fi nekkoon mais état xam nga lan la ci mënoon régime bi fi nekkoon mooy dem euh, ne ni d'accord ma nañu nañu def recours mais demul ne ni non justice dañ la dañ laa jënd xanaa kan moo koy jënd opposition li jënd nañ sax naa ni non juge bi fa nekk euh, euh, am na rakkam boo xamee ni ma nga ca mairie ba Pastef lu bokk juste parce que c'est dans la manipulation et dans une certaine communication boo xam ni objectif bi moo nekkoon peut-être taqal deru juge bi mais tey dañu war a may justice mu liggéey liggéeyam je le disais tout à l'heure bi ñu jàppee le maire de Sindian mais Ofnac moo ko wax ne ni samay recommandation mooy diw nañ ko jàpp ñu jàpp diw moom mais déggoo kenn ku ne pourtant dafa bokk ci ci kii dafa bokk ci parti est-ce que dégg nga ñu coow ci non mais keneen ñëw wax lu ko neex ci nit ñu ne ko ñëwal foog ngeen ni ñu ay firnde ñu ne non non ab ah, eh, eh, Bassirou Diomaye Faye la wala Ousmane Sonko ñoo ko jàppalu justice moo def liggéeyam. te il est de notre devoir également en tant que citoyen waxuma journaliste mais en tant que citoyen suñuy institution mais surtout ñu mel ni justice ñu mën leen a may doole bi ñu war a am. ñu mën leen a delloo seen doole mën leen a wekk wekk boo xamee ni lépp luñ décidé mais dañ koy nangu justice nag mën naa juum. mais justice mooy kuréel goo xamee ni kër goo xamee ni euh, buñ juumee dañuy nangu ni juum nañu régulièrement buñ juumee dañuy nangu ni juum nañu ci euh, euh, procès nangam wala ci dossier wu nangam juum nañu parce que dañu amoon ci ay firnde bariwul te justice lan lañ la wax présomption d'innocence moom mooy base bi mooy règle bi léegi bu ñu demee nag ba lijjanti ci lañuy ñuy doog a indi ne ni euh, am na culpabilité wala euh, coupable amul pour l'instant il est toujours présumé innocent li waral retour de parquet dem ci procureur moom ak imam Ndaw Mohamed retour de parquet j'ai vu quelqu'un dans un groupe ñu ne ni non euh, la famille de imam Ndaw nee na ni mosuñu mosul jéggulu bon ça c'est un autre débat du ma ci sori waaye li wóor mooy justice dañ ko war a may mu liggéey liggéeyam en toute sérénité qu'on extirpe la politique de la justice nekku ci sax mais bu ñu jël chaque fois di bëgg mbu booboo ah justice procureur nii c'est le procureur qui est aux ordres de l'État y a quelqu'un qui a écrit xawma ban journal ni euh, justice bi fi nekk euh, c'est toujours waaw Au, service voilà tribune li mu bind euh, après Macky euh, le la justice est au service du projet non xanaa justice kon lu ñu kii la rek comme yoote rek jàpp fii dugal fi non pour lan la justice elle est libre et ceux qui incarnent la justice également doivent être libre libres mais surtout euh, mën a am benn équidistance par rapport ak euh, chapelle politique yi pan loolu laa ko jàppee nañ may justice bàyyi leen ñu liggéey seen liggéey luñ ci jëlee tam ñu xam ne justice la waaye du mbirum politique. Euh,